doomu dëgol mi ngi noonu di ñëw Boy Niang le futur adversaire c'est lui qui avait terrassé c'est le champion c'est le cappa le cappa coli de Pikine <laughs> e no diw soxna ndeysaan na sees saat bu baa yi noonu gis ngeen gis ngeen cortège bi borom fonde bi ñëw na ñaa kase borom fonde bi la ñaa kase la xeeru fajar woo kongu fonde bi yéen a ngi koy ñu ngi koy baxal da ngay meew des naan bosam cerek meew pour xoola pour sa mbokk la pour séeréer yi la mbay dégg ngay defaral bu bëggee dégg-dëgg xeeru fajar la waaw kongu affaire bu dul boo ñaaru kenn boo ñaar seul boo ñaar point kase marti bi tas champion la ñu deel mais ngaaka la ngaaka la après les comprendre après les comprendre naa a wax ci lu leer laa laaj ñu ne booy ñaa ak ñoom waa Pikine sax xam nañ ne am nañ combat waa Pikine xam nañ ne am na combat mais boo ñaa xam na ne day contact si waaw boo ñaa moo dàq bëri Tapha fuuf bu ko jàppee da jàngal bëre Tapha Tine taxuñoo jug liñ tax a jug mooy roi des arènes xam ngeen ni ngi sóor Balla Gaye lu leer laa lay wax du Tapha Tine Tapha Tine boo ko boñaa jàppee rek a gelax ndikoo non non Kobé Kobé lu bi nag du ay caaxaan Kobé Kobé Kobé nag bàyyi Tapha Tine la wax rek ay gelax ndikoo bàyyi ñàng ñàng lu bi ngay ngay nga may xool nii ni ñàng ñàng lu non da ngay defal affaire ak da ngay kii wa waaye xooluñu Balla Gaye doo mën a comprendre mais ñun xam nañ mbër bu baax mbër lu muy yor du pour Tapha Tine du pour Balla Gaye champion la leer naa nangu nañ ko waaw ñi koy tëggale seen lamb bi seen papa kese nekk mbër boo ñaa non lu grand laa lay wax grand li nga wax nangu naa ko mais boo waxee loolu après damay bañ slogan bés bi déggoo ko de c'est que yow damay dégg yow da damay bañ slogan bés laa bëgg nga dégg laa wax fajar waaw kong dégg ma waaw kong bu bañaaru kenn dafa tin ma xamee mu toog moom fan la toll mi ngi si yoon mbër egsi na egsi na bul xalaat <laughs> ñoom ñooy bëri combat bi yéen ñii. of course. yéen dama mel ni. non moo yor instant yii xoolal ngemb bi rek moo. rek barke sëñ Bamba Mbacke gars yi xam nga boo gisee ñu mel nii ah. Seck booy bi Seck booy bi gars yi nga umpale. yàgg nay bëree combat ñu naan boo ñaa boo ñaa yaa ngi dégg. combat yi bëri na quoi sa combat bu ñëw wane boppam ñu jox VIP bi ngeen day da ciy gaañoom déet ñu ne ñoo pare fépp barke combat yi bu doon sonn dimanche jël nañ ko. Tapha Tine samedi Balla Gaye dimanche Balla Gaye parewul moo doon mu teel a tukki nii barke maam seera fa lii du lamb lii du lamb yàlla na Balla Gaye ma ko jàppee mu xam ne ma tuuti ma anam bari champion anamu iril leen ma ko bu ñëw waa léegi iril leen ma ko bu ñëw iril leen ma ko bu ñëw léegi ñu xaar champion waaw ñu xaar champion mu ñëw dekkeeti na. làmb sàjji na. làmb sàjji na. liñ doon mais. waaw mi ngi nii rek sant yàlla bu baax a baax ah. tey sa sa papa moo xewle sa xarit sa lépp tey moo xewle daa mel ni namoon ngeen lii dellu siwaat en force indiwaat seen cin fonde te yaa yenu cin bi wala. moo tax sama esthétique lem ko ba mu nooy laa ko yaa ma gën a xam maalaw bi ànd ak booñaa maalaw bi nga xamante ni nii xàmmeetul waa bi noo deme demee bu booñaa xew du xàmmee janj ak joor waaw noo la demee ci kattan yàlla ak mbaax waaw noo demee comme d'habitude yow xam nga ñu yow tuñ ko ne noonu la demee bëre càppaacol bi lii mu andi nii nag tey tey tey tey tey nag lii nag non lii lancement rek quoi lii lancement la tiir la dañuy ñëw wax que l'arrivée de Boy Niang l'arrivée du fils de Gaulle, il est là, il va faire face à Tafou, le du Baol. Il est là, les Pikinois sont là, arrivé arrivé bu am doole ndeysaan la ilaha illallah muhammadu rasulullah wëpp wëpp wëpp wëpp wëpp mais mais lii du yoon ah mais lii neex na ah eh, Ablaye lii neex na ah Ablaye lii neex na ah leen waa Pikine yëpp génn nañu Pikine bi yëpp génn nañu l'adversaire de Tapha Tine est là la champion est là waaye yow yow lay def nii da ngay dem rek <laughs> waa léegi taxawal léegi taxawal léegi taxawal mais xoolal waa Pikine de de de de mais yow mais yow ni ngeen ni ngeen ñëwee tàng na de. waa gis nga de daa tar na am lu bëgg a wane. lan ngeen di wane. daa am lu bëgg a wane. lan ngeen di wane. nii. ñëw ñëw booy ñaari yomb moo ñëw booy ñaari te dafa am lu ñu war a wane suñu cin fonde lañ teg kenn ku ne di nga jël sa. mais nag mais ji du ñeexu ñebe de. waaw mais seen fonde na yem géeye waay. waaw xam nañ kan mooy tafaatin waaw. mais kii nee dafa lëlu lu yàgg di entraîné ngeen nangoo jël avance am. yaa may wax loo si micro man bëgguma di wax yow xam nga lool man na may daw micro. mais booy ñaa ko xam qualité yi nekk si Boy xam nan Boy xam nan kan mooy Boy Niang yàggatul yàggatul a ah, baax na nee na yàggatul mais dugub yi dina metti de mais dugub yi dina metti de waa Pikine yëpp a génn non non lii du yoon booy li ngeen def du yoon dégoolu moo lax de lamb jee ko laaj lamb ji moo ko laaj fekk Boy maanaam waa Pikine ko bëgg te ñun ay doomu ndeyam lañ damay daan tafaati damay daan Balla Gaye incha allah billaahi wallaahi foo ko dama ko teg fu wóor parce booy yu garaaw rek ngay wax xamee nga kon jeex na lu garaaw rek jeere jeena Balla Gaye dinañ ko def loo xam ne ndeyam du sax ta baal baal lu ñaar fo dañ koy jox te wax li ma